الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di jiital nuyoo bi imam Souare ci jàngale yu am solo yi nga xam ni moom la fi jàngale man na ko sëkk yàlla nañu yàlla may dégg ak topp wax na ci wàllu sëy wax na ci wàllu sartu sëy te dafay baax léeg-léeg bu ñu demee ci jotaay yi mel nii li tax ñu daje fi nañ koy leeral wax na ni aksaruhunna muhuran aysanuhunna barakatan nee na ki gën a jigéen bi gën a am barke mooy jigéen boo xam ni cangam dafa néew te moom lañ doxal fii te sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis ne ida jaakum man tardawna diinuhu wa xuluquhu fa zawijuhu illa takun lakum fitna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni nee na bu doomu aadama ñëwee di labat seen doom xoolal critère bi ñu ne ko yonent bi ban critère la jikko ji ak diini yi imaam maa ngi lay seddal ni kii ñuy may ki ki teg xale bi ku am diine la itteem yëpp mooy xadara bi la itteem yëpp mooy daara daayira kon dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko ci yàlla may barkeel mbaykatu njaboot gu barke yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla mën nit ñi defee mobilisation rek dafa am lu muy firnde dafay firnde ne quartier ba la ñuy jógee dañu suude wu nekk benn weer ko ci waxu borom bi di wax ni innamal muminuuna ixwa ñu ñëpp ay mbokk lañ moo tax ñu bàyyi suñu it yëpp ñëw ànd ak Arona Kidab pour xewam bi kon dafay wax ne damay wax toujours ni ne bu ñu dëkkee rek nañu dëkk ci jàmm gis nga jàmm jooju moom la sallallahu alayhi wa njëkk instauré bi mu jógee makkatal mukarrama dem madina li mu njëkk wax ayuha nnaas afsu salaama fi ma baynakum yéen nit ñi waxul julli di de yéen nit ñi la wax wesaare leen jàmm ci seen diggante kon jàmm jooju yàlla nañ ko fexe mun sax ci àdduna bi yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla mot en tout cas ñu ngi lay seede li ku am diine la ku yaru la ku dal la ku jigéen ki nag xaw ma ko waaye ñun wama shahid illa bi ma na li ñuy gis ak lu ñuy seede moom la ñuy seede bu dee fekkoon ne dafa nekk neneen dañuy maanu noppi liñ ko xamee lan la daayira xadara gàmm takkusaan te loolu ñooy wax ni yonente bi nee na fexeel bokk ci juróom-ñaar yooyu sabaatun yuzilluhumullahu yawma la zil nee na juróom-ñaar yi ku ci bokk yàlla dinaa la kera lu mu ci teg wa shabu nasaa fi rab rabbi xale boo xam ni dafa sax arab buy wax dafay dugal jigéen xale bu góor bu sax di jaamu yàlla xale bu jigéen bu sax di jaamu yàlla yàlla na maa ne nee na maa lay keral te yàlla ku mu keral dugal na la àjjana kon yàlla ko yàlla mën xutba bi nag imaam da nga baax rek tax nga jox ma ko waaye fees nga ko del damay wax toujours ni xutba bi léeg-léeg koy wax ci arab waaye danay baax léeg ñu koy wax ci ci di ko faram-fàcce ci langue bi nga xam ni moom la ñu nàmp du dara lu dul sant borom bi subhaanahu wa taala bàkk ko moom kese moom la ñu war a jaam koo jaamu ku yàlla perte kenn du la fekk ci sa biir bàmmeel lu dul sa jëf wa wajadu ma amilu xaadira wala yazlimuka rabbuka ahada bi ci topp mooy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek la ñu war a topp keneen koo topp ko du yonoo perte nga atiu llah wa atiu rasul wa ulul amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasul bi ci topp nee na xutba baa ngi wax ba tey nee na nañu ragal yàlla ragal yàlla nag du wax dañ koy jëfee yàggal yàlla mooy lan al imtithaalu bi ma amara allah subhanahu wa taala jëfe li yàlla santaane bàyyi ay tereem yàlla nee na maa daganal sëy aramal njaalo nee na njaalo bu fekkul woon doon picc yi kon du ma wàcce sama taw kon yàlla nañ ci yàlla musal kon jërëjëf ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla mottali sëy bi yëpp waa quartier bi yëpp ñëw nañ lu day wane ni quartier bi dañoo soudé wu nekk benn amul xale amul mag ñëpp benn lañ kon maam jërëjëf yàlla ko yàlla fay lii moo doon kàddu yi wasalaamaaleykum